président Bassirou Diomaye fay la mu bëgg moo di ñu amal farlu gu mat sëkk ci jëmal wàññi gi ñu amal ci njëgu yenn produits yi fii ci Sénégal ci ndajeem conseil de ministres mi lee njiit réew mi daal na sàkku ci gouvernement ma ngir ñu wéyal waxtaan yi ñu amal la ak bépp acteur bokk na ci meññe yi waaye itam ñu yor boutique fii ci réew mi ca booram premier ministre daal dina ñëwaat ci coow li amoon diggante meññe yi ak nguurug Sénégal ci lu ñeewal wàññik njëgu farine bi moom Ousmane Sonko daal dina fësal mbébétam mu di wéyal enquête yi nga xam ni am na jëm ci nemmeekuk ay njuuj njaaj yu ay entreprise di amal fii ci réew mi ña ca jiitu di ñuy defal farine. ci ndaje mi lee daal dinañ ci waxtaan yi itam mbirum souveraineté nationale maanaam moom sa bopp ci bépp fànn. la cay priorité yu njiitu réew mi moo di fexe ba gën a ñoŋal entreprise yi nga xam ni nguur gi moo ko moom loolee tax mu sàkku ci premier ministre mu gën a baral lépp luy ñoŋal consommé local waaye itam njënd ak njaay bokk na ci itam fexe ba teg loxo ci njëgu dund gi am ci ndëgër laay gu mat sëkk moom njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye daal dina itam santaane ngir nguur gi fay bor yi mu amee fii ci biir réew mi waaye itam fexe ba maîtriser lépp gi nga xam ni Sénégal mu ngi koy amal ci bitim réew